ce ne sera un Sénégal ñoo doon wax un Sénégal pour tous mais c'est un Sénégal pour 2 pour cent de la population kese. un Sénégal pour tous et, et par tous. par tous moom mënta nekk parce que ñu ngi chômé y en a un million qu'ils ont accumulé au moins xam nga au Sénégal tu as 600000 700000 per 600000 personnes ñoo am ay revenus réguliers xam nga loolu. 600000 même si aussi boole ñu liggéey ci kër yeeg yépp système boobu moo fi nekk donc la richesse matérielle est concentrée très concentrée. 1 pour cent 2 pour cent maximum de la population yore revenu ñeneen ñi nag ñuy trémé comme ñu wax moi su ma la tànnee dimbale la eh bien moi ñoom dañuy compal les uns et les autres ce système là il est intenable nee naa tu peux pas former sur sur 10 ans 1 million de personnes qui vont rien faire tu as vu le danger que c'est c'est un drame ça qui va nous arriver va nous qui partent dans les pirogues Barzac sont courageux sont des combattants très courageux des combattants le jeune de Pastef là euh, qui est parti euh, c'est un combattant ñu mel noonu ñoo koy def. il faut interroger leur choix aussi. politique l'immigration c'est un drame. man loola man nee naa ne devrait mais euh, non dama la que les Sénégalais soient obligés d'opter pour cette voie de réussite mais tamit est-ce que ce n'est pas de la responsabilité des porteur de voix. d'abord de Macky non c'est d'abord l'échec de politique gouvernementale. de Macky Sall wax war war nañu interroger de choix de parce que. parce ki dajale ki dajale onze millions dans ce pays là amoo loo ciy def ngay dem Nicaragua où la responsabilité de l'État ki dajale cinq millions jël jaar aéroport de Dakar dem ak ji Nicaragua il faut ce débat là aussi mais Macky moo waxoon ne il règle problème de l'emploi. non cinq 11 millions dans ce pays-là mais tu investis tu démarres une entreprise. non déglu ma da nga ma ne la responsabilité de Macky ci loolu lañ nekk. ma di la ah. wax d'abord c'est l président de la République c'est lui qui définit la politique de la nation. kenn ñi ma wax leneen lu dul loolu moom moo daf d'abord il y tient il a ses députés qui le qui se reconnaissent comme tels. syndicats yi bougé wuñu en 12 ans ñëpp ne tekk. mais en fait immigration clandestine bi je. Euh, li ma li ma bëgg wax mooy. est-ce que euh, sujet bu ñu war a politiquer la dañuy dañuy décréter. premier mais jàpp naa suñu amoon liggéey suñu amoon liggéey Sénégal fii duñ def. do d'accord xam nga xam nga mbir mi dafa bari xam nga mun nañ accuser gouvernement bi ne pourquoi en fait pourquoi les per perdent espoir. voilà ba di opter pour ce choix périlleux et meurtrier. c'est la bonne question pourquoi maintenant des femmes jël seen doom yëpp leen ci gaal ne dañuy dem wutali Espagne. léegi jigéen ñi sax pour te parler de courage. Je me demande comment ces femmes-là ont pu imaginer ce voyage périlleux la Ah, oui. Pourquoi désespoir bi envahir nit ñi bañ ñu am courage boobu mais tamit waruñu ko politiser pourquoi aussi des jeune de Sandaga de jeunes des HLM des piroguiers ils vendent leur pirogue ils embarquent ah 11 millions. 5 millions 7 millions mënoon nañ investir fii. non ñu liggéey ils pour le. <coughs> mais yow pour le Nicaragua. mais les piroguiers la tu les as vus dans les rues de New York mais c'est c'est une image dégradante du Sénégal. c'est Macky Sall moo ko liggéey. ak Amadou Ba ak Benno Bokk Yaakaar ak APR seen liggéey la nee naa leen amuñu courage patriotique.